mais man nekkul woon jaay ma nekkoon sama xel man maa ngi wut nekkoon ci ay tournage nekk ci ay animation et tout ça bu soo xalaat jaay bi mais après yenn client yi na man aw ma fii li mi ma wax aw ma sëriñ bi defaral ma may defaral ñaari ñetti nit ñeenti nit mujj gi ma di ko wane naan maa ngi defar naa ko noonu la commencé ba jaaxal ma man la première jour laa dugal ñetti fot nit macha allah di baa ngi nii moo may tey bi ñoom wallaahi noonu la demee. bu ñu demee ba sama kër may mujj gi may teg étagère yi sama biir kër di jàmb guddi ji bëccëg ma laal sama mat laa teg teg samay chaise client bu ñëwee mu entraîné sama toog wax seen problème ma daal leen koy fajal ma dem ba jëf yi ëpp doole parce que sa kër fi nga dëkk dafa am intimité aussi warul ku nekk warul ñëw xam ko di laa ubbi boutique Ouest Foire ma dem Ouest Foire yëf yi tamit commencé xat. clients yi di bëri di bëri ba ñu mujj ñu def beneen salle si yenn clients yi bu ñu nekk attente yeneen nekk si ñu dem ba yëf nag wax yi so ma sonn daal ak problème nit lépp da ngay a def sa soin de visage di a def say a jigéen daal de manière générale kër jigéen ñi daal laa ko mën a tuddee. d'accord alors seen coow bari ñu gis ne jamono ji moom coow li bari na ci seen biir yi nga xamante ni yéen yéen a yëngu ci wàllu yi yu weesu tak sa coow ak moom jaay sa alors jamono nga xam ne yaa ngi ci milieu bi. non non man moom aw ma cee ngi sa diggante la plupart ñu sëy mais ñun dañoo dem ba bi mayeetu ko ku si nekk di def li nga war a te man dama leen a naw ñoom ñëpp ñu nekk ay jigéenu jàmbaar ay jàmbaari jigéen lañ ku ci nekk yaa ngi si sa rob yaa ngi gis live bi xale jigéen bi ñu nalaw bu ñu paree ñu ngi si production ñu ngi jàmb diw ñu ngi gis diw ak ay ku ko dul fekkee mënoo xam ne ki li muy nekk doo nalaw guddi boo xëyee yaa ngi live di wax ngir li nga defar jar soo paree yaa ngi expliqué client yaa ngi am stress ki ma ko ki ma jaay pas après lu am yeneen retour yoo xamante ne parce que client yi tamit ñëpp yamuñu ñii dañoo naqari dara ñii neex dara daanaka looy xulóog looy xeex daanaka doo ko si gis man de gisuma ko si. mais coow li bari ah ma coow li mun na bari parce jaay mun na ànd ak noppi. tey jii ngay gis ñu def promo sax si mbedd yi dañuy jot seen micro di yunku naan ñëw leen loo jël ko fekkoon li ñuy jaay rek baax na rek dañuy toog ñu toog rek duñu wax dara mais faaw ñu yunku faaw ñu def ambiance faaw ñu teg musique faaw ñu def dara pour client bi mën a ñëw donc boo taale sa live fii Sénégal a kaa faaw nga def bruit faaw nga yëngal faaw nga reetaan faaw nga fecc non wax yu ñaaw moom daanaka lii na ko sis na gisuma ko sax parce que wax bu ñaaw moom dëkkul fu mu jëm fu mu jógee nit ki bu waxee lu ñaaw rek ko ci boppam bul sax inquiété wu si nit bu la indexé lu ñaaw parfois sax nga nga nekk nit kese nga parfois mu naqari la parfois et tout ça mais après da ngay toogaat sa entourage yendaat la nga voilà affaire bi secret bi liggéey wax bu bëri amul benn sens bu mais jox li nga duggoon fan yi nag sa diggante ak milita li nga xamante ni moom fi jotoon xew ñëpp jàpp ni sax yow sa bopp yow yow indi jaxase bi yow jaxase sax jaay sa ak lan nga non kenn ko kay xanaa yow yaa ko wax waaye loolu kenn jàpp moo tax ma dugg doon doon leeral parce que foofu coow sax leeral éclaircissement la woon man boo ma gisee xam ne man laa mën a wax lii la ma jooy laa la preuve bi ma defee loolu sax damaa jooy sax tey moo <laughs> waaw ba tey baal naa leen baal lu ma fabriqué lu ma fabriqué wu lu ma tontu lu ma tontu lii tontu la lépp showroom bi tontu la lépp li ñu nii di wax yëpp maa ngi woon toog sama ruq di jaayaale en même temps xam nga waa gars yi di coow nii damay reculé waale def samay promo def samay affaire jaay sama jaay jaam sama jaam. kenn ku ko see aay lu loolu yow xoolal fi may dugal noonu amul sens ma ne ñoom ñëpp samay sœur waaye man maa ciy numéro nga ñoom xam nañ ko man xam naa ko ñoom xam nañ ñoom buñ toogee wéet seen kër nañ xam dudu astu man damay wax samay propos pare génn di jàngi damay dem di jàngi di jël samay bool chaque jour yeneen a di dem di jàngi fu nekk fu xam ne day defar diw man su ma ko téyee nii nii laa koy téye xool adresse xool lépp xool tapé si internet bi daf ma koy jaral rey sama bopp ba xam source bi fan la rey sama bopp di dugg di génn di dugg di génn def samay recherche donc temps boobu laa gën a am

waaye tamit ku jàng ku nekk yaa ngi def leneen li bon mooy toog wala caaxaan wala def leneen ak leneen l'essentiel mooy euh, réussir. te nit ñëpp yaa ngi koy def mais jàmb diw mélange la rek jàng loolu du problème man loolu yàgg naa ko défendre sax ñuy jaay diw jàmb diw xam nga li la jig def nga lii def na la mën nga proposer say client loolu la léegi ñenn ñi nag ñenn ñi nag dañuy leen jaral ñuy xam ne composition bi acide bi ak acide bi bokkul acide de fruit bi acide de fruit bi bokkul euh, sérum bi ak sérum bi boo ko booyee day dagg sa biir baaxul lii dégg lii boo ko booyee da lay def rougeur léegi li bokk loolu tamit leneen beneen beneen pàcc la ci diw rek mais jàng ak ñàkk a jàng loolu sax définirul gën a baax le nit mën naa bañ a jàng gën a baax le nit mën naa jàng baax le mais dañ la dégg nga ne yow yaa gën a ay numéro un xoolal la yow loolu kay yow mën nga laaj Sénégal da ngay laaj sénégalais yi ñoom ñoo ko wax man waxuma ko sénégalais nañu foofu teg. sénégalais yi man maay numéro un man waxuma ne man maay numéro un dama ne ñoom ñoo <laughs> man maay numéro un te confirmé naa ko encore une fois parce que Ameth xoolal la sa bopp nga xool ci nga dugg yëpp nga xool cat ba cat fii du la. non nee nañ nee nañ ci ah. dañ ne yow lii euh, euh, perte moo la si dugal parce que nga nekkoon euh, États-Unis ñu dàq la amatoo foo jëm moo tax nga ñëw. <laughs> nga jógee. man états laa nekkoon macha allah waaye ke dàq ñu ko dàqee doo ko duggaat macha allah non non jaaykat sa mooy di ko wax. jaaykat sa mooy waxuñu loolu jaaykat sa. waaw parce que nee na xamatoo moom parce que jaaykat sa mooy donc loolu noonu c'est des fausses histoires ay jaaykat sama mooy lii wax jaaykat sama waxuñu dara dañuy tànn sant des fois mais ñoom waxuñu dara mais en tout cas en tout cas euh, ñu ngi liggéey te liggéey bi na ànd ak résultat te man am naa résultat. ñu dugg ci sa wàllum liggéey nga boole ko ak animation nekk ci télé bi ñu lay gis tout temps sa dugg ci télé bi ak métier bi nga fi ko boole. dugg ci télé bi loolu lu la si man de ndax man dama bëgg affaire animation ngi ngi ci lu di donc ba ñu jël ma ma télé bi tamit may wax tamit voilà la rek maa ci télé bi maa ci si bi maa ci lenen ak lenen ak lenen ndax jigen ak goor yep ben la liggéey dal liggéey dal lañu sante ñi ngi liggéey di jaamu yalla alors alors tuuti fi may tàggatoo mooy gars ministre yi ñom ñoo nekk sa ginnaw lan ngay don hmm? kan wax loolu. Ah, ministre yi ñoo nekk sa ginnaw xam nga lu nekk sama ginnaaw man jënd saabu jënd jiw jàmb ko jaay ko am bénéfice jàll ci lenen xam nga lan moy sama far sax man saabu yi uh-huh. aw mata temps aw ma temps sax. man maa amul temps sax pour nekk di wax nit jot la ba nekk ak kenn maa ngi sama liggéey ba yàlla indil ma liggéey ma nekk loolu kese la. jaajëf liggéeyal tamit liggéeyal tamit. liggéeyal non non non yaakaar saabu yi liggéeyante wuñu waaye yéen seen histoire yi boo leen ko déggee yaakaar saabu yi liggéeyante wuñu. yaakaar saabu yi yaakaar saabu ñëpp ñu ngi seen dox di liggéey fii kenn liggéeyul fi kenn ndax li ngay liggéeyee kenn nga liggéey ko sa bopp jéem a avancé moo gën mais fii kenn waaw su ko neexee wax loolu waaye loolu man tamit dégguma ko si moom wax ko mbay. waaw lan nga koy ragal non dama bëgg da leen effacer yéen ñëpp ngeen daw. ragal dina def lii donc man aw ma ko may ragal yàlla rek laa yàlla rek laa yaakaar ñi dem ba bëgg a bàyyi bëgg a defaraat seen yaram ah, boo xam ne sàmm collage produit yoo xamante ne vraiment taaj bi duñ ko importé euh, moo boo gisee ñu tuddee suñu sax. sama bi. bañ ko jaar tey laa lay jox ko ba nga denc. ah yow bare rek. donc ñëw bëgg koo suñu teen suñu génn lay wax donc liggéey dafa rafet et tout ça sa teen dafa rafet donc ñu ne ah pourquoi pas dafa métti dafa am ñuy bis liggéey bi dafa ànd ak ak ak ak saytu sa jour ngay ci jàng bu jaral ñu dem ci ay dëkk yi nag ba nga xam ne léegi prouvé la amatul lu ñuy lu ñuy wane lu ñuy kii léegi lépp prouvé la moo tax nag vraiment ñu dem ba am te ni client bi xajatul fa ñu nekkoon <laughs> xam naa lu la jaral la lii lu la jaral la parce que yow lii def li bëriwul lii lu la jaral la yow <laughs> ay nga encouragé waa kër maman Aïssa fu dem xam ne dara nga fa yéen ñaar xam naa leen bu baax fu dem xam naa ne dara nga fa. sama dooma aaye te ñi ko motivé ci laa bokk dama koo fekk mu am jom koo dolli jom. waaw. waaw waaw yàgg fa koo fekk fu ne. man maa gët mi. waaw sa sëñ yi am na. waaw waaw waaw man maa ngi li muy jiital lan wa eh. kan. eh, ma je lige mana ras ras e yom ak soko de ni wa lige ti dor lalla wa mbay rous sama xarit ak am jom wa mbay ba xam di wër ñom lay wër ci dëkk bi ñepp na da nga yoré dépression bo duggé ci mbale kenn eh bu faale kenn ar kan mam fi rafal trabalho da mulher. O trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho. Laissez-le, o trabalho. Loolu kan la tooñ kan la tooñ. maa ko faral avocat dama ne ku nekk ngi liggéey travail nañ la baax. travail. oh sama xarit la. nañ la baax. sama xarit la. travail. waaw waaw sama ba sama xarit. mbay ko bañ la bàyyi mbay. mbay ku caa. mbay ku caa ngi nii taxaw ma la tooñ kanamam gi mel nii. je suis Sénégal maman Aïssa mi ngi may xas kanam gi mel ni ku du xale laa wax. mbay sama doom nga sama xarit nga dama laa bëgg mbay bu wax loolu. ensemble. bàyyi ba ñu pare bàyyi ba ñu pare nii. waay waaw sa jëm ma tere waay. Lami de Sidi Diop. man fan mag Aliou waaw. non dama laa bëgg nag. non dama laa bëgg dama fan magee. ah fan magee. waaw fan magee xam nga lu baax yaa xam lu baax. wax ak kaa. waaw mbay asoo xew na suñu rakk. xale am jom dafa commencé ci zéro. Mhm. ba ñëw ba ci ay deux cent. xam nga am na jom. sa tànk xanaa sa tànk valeur. xanaa sa tranquille la taxawee. xanaa yaa koy dee. non damay waxtaan ak moom fu kenn nekkul. vraiment dañuy waxtaan bu seddee normal dañuy waxtaan. ne mhm. xale bi mhm. jikko yi nga mboo daf ma nekk. te xale bu nekk Dakar jongoo mel ni nga war a mel. te déggu la xale bu xam li mu bëgg. Ah. ba pare en plus xale bu dafa jóge dëkk dëkk ñëw Modou Modou si. Fatou Fatou. bu ñëwee li mu ci woon am na ko. <laughs> comme yow rek yow rek da ngaa jóge da ngaa jóge dëkk dëkk ñëw Fatou Fatou bi mais fi mu nekk nii yaa raw sax Modou Modou yi. <laughs> ana bëgg ngaa wax. <laughs> Ah, ah. laaj ma ci xew la ma wax la. waaw ci xewle programme boo dugg dama lay fekk. ci xewle am dafa am jëkkër am jëkkër. amagul mais xam naa léegi rek ci yoon bi. amul jëkkër ah. léegi rek incha allah ma ko jot yoon daanaka bi muy jëkkër dama la waxoon laajoon dama ko am am ah, jëkkër ma la jot am nga jëkkër de yomb na. sa ah, am nga jëkkër de. barke yàlla fi nekk nii kontaan naa moo kenn gisatu la naanee naaneetoo café naaneetoo ataaya reereetoo lépp yaa koy defal ma mën ko di ko defal sama jëkkër normal waaw lépp yaa koy defal sa bopp ataaya def lépp lu ma gis ci benn bi programme bi nga nekk may bu ñu ay wax <laughs> ma ne la wasu ba Mbàkke rek jigéen du ko dégg parce que Serigne Touba Mbàkke sa jëm dëkkër jeex bu xew rek eh! Bisa, bisa nga bi nga sàccee ba tey da nga am xaalis da nga Bisa, bisa, bisa yàlla rek sant yàlla. loolu ah pardon sëñ bi damaa bëgg nag nga dem si télé ba waaw d'accord incha allah. ah dinaa ñëw. nga ñëw leen téléphone yi. dégg naa toogatoo sa place. da nga am xaalis moo tax toogatoo ko. non maa ngi toog parce que xam nga bu ma toogee. Hmm. faaw ma génn di lijjanti liy doxal place bi. li am solo mooy client yi dañuy am satisfaction ku nekk li nga bëgg soo ñëwee nga am. xale nga fa bàyyi. non non même pas maa ngi fa. Ah. sama liggéey mi ngi ci biir. ah yow naa <laughs> ma ñëw ñu waxtaan ak. incha allah ayca. mais Dijjëf soxlaa ay son.